jaaro bi képp ku ko soxla ak képp ku ko bëgg bala ñu la koy jox man boog sama bos bala ma la koy jox il faut ma seetal la il faut que ma def listixaar ba pare kon bala ñu la koy jox dafa am ay tegtal yi nga xamante ni moom la ñu war a xool ba pare ak yi nga war a wax ba pare ba xam yow say biddéew ak say ak say xuddaam ak say mbir fan la taxaw kon nit bala nga koy ñaanal foog mu am ay sarax foog ñu xool ko ba pare jaaro bi bag mystique la bague de chance la moom ku ko takk yàlla dana ubbi say buntu wërsëg te daf lay aar pour cat dalay aar pour làmmiñ dalay aar pour rab dalay aar pour jinne dalay aar pour seytaane sa wërsëg mën a ubbeeku bu baax te surtout nga am luy tokk waaw jaaro bi pour nga mën ko am il foog ñu seet ko ba pare mën la xoolal loolu yëpp xool say gàllankoor lan mooy yàq say wërsëg xool yan cat moo nekk ci yow xool yan bët moo nekk ci yow xool yan làmmiñ moo nekk ci yow xool nan lañ lay mën a ñaanalee ci say activité ci sa bayre ci sa wàllu commerce ak wàllu kaaraange bi nga war a am ndax nit ku nekk dafa am ay biddéewam fu mu taxaw ñu xool ban façon kaaraange lañ la war defal ban façon bayre lañ la war defal ban yan fas xeetu saar moom mooy ubbi sa wërsëg ci looy sangoo looy suuroo looy takk looy diwoo looy naan te dafa ànd ak ndomba dafa ànd ak ay gàllaaj ay gàllaaj dëgg la àndal sangu suuru takk diwu naan lépp a ngi ci biir nag macha allah lu baatine la mais bague de chance la ay gàllaaj la àndal yi nga xamante ni lépp ci alxuraan lay dox maanaam alxuraan ak xam ak saytu sëñ lay dox incha allah kon ku yàlla dimbali ci kattanu suñu borom ak baaxam ak yërmandeem jaaro bi moo nekk nii ngeen ko gisee per bu xonq la per bii mooy peru aqiqa per bu xonq bii mooy peru aqiqa kilifa yëpp boo leen seetloo dañ koy takk kon képp ku yàlla dimbali muy kuy jàng muy kuy def commerce muy kuy def concours kuy def examen ñëpp ñi xamante ni ñoo ngi liggéey def business ba ci ñi politique ak ñi leen di jàppale ñi am na ñoo xamante ni ñoo ngi politique topp ci politique bi di daw di daw di daw te gisuñu ci seen bopp amuñu ci dara bu ko defee kilifa yi ñuy topp ñooñu itam bàyyi leen xel ak surtout jamono jii ñi nga xamante ne dañoo bëgg tukki dem bitim réew képp ku bëgg dem Amérique pour demander visa légalement boo takkee jaaro bi soo demander sa visa daañ la ko may légalement teg ci incha allah say buntu wërsëg dana ubbeeku say kii dana yomb ba dépp bépp document administratif bula la ambassade di laaj incha allahu rabbi yàlla dan la ko jàppandalal di nga dem ci jàmm te boo eggee itam di nga am liggéey bu baax doo fa nekk di fanaan ci mbedd doo fa nekk itam di regretter la moo tax nga tukki da itam yàlla nga am kayitu dëkk ba kooku jaaro bi kese ci Sénégal la de jaaro bi kese mooy li la koy mën a may bépp sénégalais bépp nit ki nga xamante ni yaa ngi ko takk ci sa loxo fépp foo demande visa sunu borom dina la may incha allah bépp kayit bi ñu demandé yàlla dina la dimbali di nga ko a am fépp foo bëgg a a dem ci jàmm ak salaam dafa ànd ak ay ñaan ànd ak ay gàllaaj ànd ak ay ubbeeku macha allah rabbi képp ku ci demande visa yàlla dem la dimbali ku ci tukkit yàlla dem la dimbali ñu tukki ba pare te mënuñoo am dara xefe leen ci am. mooy jaaro bi nga xamante ni moo ànd ak ñaari gàllaaj ak ndomba képp ku ko bëgg ci foo mën a nekk ci àddina bàyyil ma vocal whatsapp mais nee naa leen à condition foog ñu seetal la ak foo mën a nekk foog ñu seetal bu nekkee Sénégal nga nekk ci wàllu tukki ne ma jaaro bi laa bëgg ci wàllu tukki ñu seetal la ba mu leer wax la lépp ba mu leer incha allahu rabbi am na jigéen ñu bari bëgg nañu am borom kër mais mënuñoo am borom kër am na góor ñu bëri bëgg nañu takk soxna mais mënuñoo xefe ba takk soxna mënuñoo dajale dara mënuñoo xefe ba am soxna ngoro gu ñu taxawal day yàqu am na ci sax sama mbokk góor yàlla ñi nga xamante ni bëgg nañ takk ñaareel loolu ñu ci biir am na si jigéen ñi xam te nit bëgguñu am wujj loolu yëpp looy wax la ak looy bëgg la rek ñu ñaanal la parce que nit am nga droit bëgg lu la neex jigéen am na droit ni bëgguma wujj loolu ñëpp xam nañu c'est normal am na ci droit ñaan lu ni góor amee sañ-sañu moom dafa bëgg ñaareel am na jigéen bi nga xamante mi ngi ci biir këram bëgg ko bu ko neexee ni man bëgguma wujj lan moo tax bu jigéen taxawee ni man bëgguma wujj sénégalais yi nii waaw la moo tax sëriñ bi di ko ñaanal bañaa ñaanal dañ koy ñaanal kay dañ koy ñaanal bu baax bépp jigéen bu bëggul wujj ñëwal jege ma barke sëriñ Tuubaa su ma la ci ñaanalee fasal la ko ci jaaro bi doo ko am ku bëgg defiyee nag nag jëndal ko sa jabar nga xol ndax di nga tak do tak ngoro bo taxawal day yàqu man mako wax man sëñ Bara Fall képp ku am jaaro bi ha ah, bëgg tak soxna ni mo sa jabar la bëgg nga am ci liberté wu sañ-sañ da nga bëgg tak soxna ñu ñaanal lako ci nga am ko kon jigéen itim nañ ko may liberté momit ba momit su taxawé ni bëgguma am wujju ngir yalla nañ ko ko nangul bépp jigéen bi xamanteni yaangi nek sa neegu sey te lo wujju lo ñaaral ba fa fekk wala lo ñettel ba fa fekk jage sima barki cheikhul khadim doko am man ma la ko wax incha allahu rabbi defee naa quiconque incha allahu rabbi jërë ngeen jëf kon nag loolu lañ doon leeral ci jaaro bi pour bépp nit ki nga xamante ni soxla na ko nañu bàyyil vocal whatsapp du lu ñu jaay nag leeral naa ko sànq dinaa ko waxaat du lu ñuy jaay il faut ñu def consultation seetal la ba xam say mbir fu mu taxaw pour ñu mën la ko jox du ma ko jaay quiconque nekkul luy jaay du ma ko jaay ku yàlla bind bala ma la koy jaay dañ koy seetal buñ la seetalee ba xam lan moo nekk si yow ñu mun la defal ay ñaan jox la jaaro bi jox la ñaan yi mu àndal ar la ndax nit ki bala nga koy may bay rek dang koy ar dang koy ar ci chat dang koy ar ci lamine dang koy ar ci rap dang koy ar ci jinne ar ko ci sheytane mën ko may bayre bu baax ba lepp luy activité commerciale bu ci duggé yalla mën ko ci defal xewal bép activité commerciale wala bép secteur de développement bu ci duggé yalla mën ko ci defal ndam lolu moy yoon kon nak jaaro baagi ni c'est unique dans son genre ni rek la mel képp ki xamanteni lolu mo gën ci yow yalla la sunu borom yombal wan la yoon bi bañu dajé bañu jakkaro inshallah képp ku soxla jaaro bi mën nga ñu contacter ci 77 169 45 45 77 169 45 45 wala boo boo contacter suñu secrétaire euh, ci 77 160 93 93 wala ci 646 41 21 mais man sama numéro direct et personnel mooy 77 169 45 45 Guédiawaye Arrêt Dubalès Kër Serigne Bara ñu ngi leen koy ñaan ngeen bàyyi ñu message vocal WhatsApp ak lu mu munti la tontu incha allah. indi la ay leral ci jaaro bi ci garab ci ñaan ci lépp loo bëgg lo mu munti wax même bu fekke soxla woo jaaro bi leneen nga soxla sax bayil ma message vocal whatsapp jeere ngeen jëf kon allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam